soxna si ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax a fay nañ la sëñ bi. nga fàttali ñu tur bi ak sant bi. Fatou Cissé dëkk Paraxaan. soxna Fatou Cissé. dëkk Paraxaan. ñu gis leen ngeen ñëw fii ci guddi àjjuma gi nga xamante ni. waaw soxna Bally mi ngi koy amal di ko ànd ak rakkam ji di sëñ Amsatou Mbacke. waaw waxtu fii waxtu wii ñu gis ñu jigéen ñi. waaw nañ jotaay bu am solo fas yéene dundal guddi ci alxuraan ak xasida ban yëg-yëg nga ci am. waaw ah kontaan si rek te wax dëgg yàlla ñun amul li muy soxna si kon nag guddum gi moom duñ koy nelaw saa yu nees bañ ko dala commencé ba tey bët ba set fii la ñuy fanaan ba bët set wax dëgg yàlla sëñ di ñaan yàlla yokk leeram rek ñu si barkeem te ñu yàgg koo teewe yéen ngeen yàgg taxawaay bi si barkeem soxna si. ah kontaan lool kontaan lool ñun moom wax dëgg yàlla bët ba set xéwal la am rek ba ba set sant yàlla rek waaw sant sëñ a sant yàlla rek. booy tur bi ak sant bi. soxna Ndeye Ndiaye jóge Touba. waaw soxna nga bokk ci ñi jóge Touba ñëw fas yéene bu toog jàkkaaru barab bi ban yéeg ngeen am fii sant ci yoonante sant Serigne Touba. sant soxna si baax. ndax mënuñu koo mhm. ci moom. dañu ànd sañ am sëtu ndax lii lépp moo ñu indi fii ñu ànd ak moom Tuubaa ànd ak moom fépp di ko ñaan mu gudd fan loolu te wér moom bii na ko def doon ànd ko moom ci barke Sëriñ Tuubaa soxla sax mënuñu koo fay moom soxla sax ko jigéen mënuñu koo fay di ko ñaanal rek sunu xol seetlu na lool bi noonu ma duggee ca teen ba tey ndég naa mbégte moo xay mosuma koo bëgg sant ko lool bu sa baali ñaan yàlla yokk leeram taasu ci barkeem sant ko rek te di ko ñaan fu mu nekk Tuubaa woonu nu ànd ak moom doy na ba ca Mbàkke daa waaye fu mu noo rek ñu fekk ko te lu am ci moom ko sant di ko ñaan ma gudd fan lool tamit ci barke sëñ Tuubaa sant lool Mbàkke ñoo ngi dolli bu baax a dëgg yàlla neex na trop dëgg yàlla man moom tey la sama maa ngi ciy doog a ñëw wax dëgg yàlla waaye neex na trop soxna jaar yëg na lépp yaa ngi koy ngeen ñëw toog jataay bi euh, jublu xibla di jàng li nga xamante ne mooy xasaayit waxtu wi lan ngeen yëg fii ngeen toog dëgg bari na ñu mm-hmm. yëg Serigne Touba wér mm-hmm. macha allah bis bi daal macha allah guddi gi yal nañu koy fekk ay déwén déwén rek. Touba Touba nga am sa allah suñu am sa daal dañuy ñaan yàlla bàyyi ñu ko suñu kanam rek mu yàgg ñoo jiite. Mhm. topp ci ginnaawam Serigne Mountakha Mbàkke mu yàgg fi lool te wér. Mhm. Mbàkke borom Touba yàgg dundal guddi gi ñu yàgg cee teew mhm. Mbàkke borom Touba Mbàkke xasida yi jërëjëf.